jërëjëf Serigne Touba est-ce que Touba borom tubaa moroomantewul bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu yéen ñëpp nuyoob jullit ak jullit nuyoob taalibe ak taalibe di ziyaare ñëpp di baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq ci lu dëggu di ñaanal ñëpp di sàkku ñëpp ak ñaan. ci li nu mébéta liggéey la Serigne ci toolu lislaam bi di ñaan yàlla mu jéggalu nun ñëpp ci ñeewanteem ak yërmandeem di ko sant nag ci xéewal yi mu defal te bi ci gën ëpp ci njariñ yemut ak benn mooy boole gim nu boole ak Serigne Touba wëlbatiku nag di ko ñaan ci sañ sañsañam ak coobareem mu yàggal fi Cheikh mu Mountakha tew féexal ko may ko wér ak fekkeek tal ba lim bëgg a liggéeyal sëriñ Touba ci toolu lislaam bi mu liggéey ko nu ànd kook moom te day cee ngërëmu sëriñ bi ginnaaw loolu noo ngi leen di nuyoo fii ci Touba Mbacké Al tey jii ci talaata ji ci waxtaan wi ñu tàmm def yéen muy jataayu murit saadix talaata ju nekk su vingt heures dese jotee muy mardi vingt heures ñu di ko defee nag fii ci studio Cheikh Mouhamadul Fadil Mbakke ci Saxum Touba ci Touba Mbakke almahrusa ngeen di ci ànd ak ñun saa su nekk ci sit bi muy situb sàq mi di Saxum Touba point net wala ci YouTube bi Saxum Touba l'officiel ak yeneen yi nga xam ni mi ngi ci am yépp waaye tey ji talaata ji nag waxtu wi ñu leen di wax ak yéen mu 20 h mooy jataayu Murid Saadix ni ngeen ko xamee rek ñi ko tàmbalee topp ak ñi nu dab wax nañ ci loo xam ni saa yu nekk duñ tàyyi di ko wax ndax ñu bari dañoo jàpp ni waxtaan yi ñu doon def bu yàgg ci télévision ba taxawoon na bu yàgg yàgg ay bis gañ taxawalee loola ci télévision ba ba fi muy wax ak yéen mi ngi am ñu daan ko def ci YouTube bi léegi nag mu ànd ak site bi kon képp ku koy seetaan mën nga ko séddale wala nga séddoo ko ak sa bokki jullit sa bokki taalibe te ñu gën a win baat bi ci di ko partagé te ngir yéene jiñ ci am rek ci liggéey Serigne Touba képp ku ci bëgg a itam euh, yoon wi ngeen di jaar xam ngeen ko ngir man cee abone ngir mën di topp li ci jaar lépp ci li ñu nab nab ci liggéey Serigne bi kon nag tey ñoo ngi leen di sant bu baax. tey nag mu dikk ci jataayu murid saadix jataayu murid saadix nag waxoon naa leen du loo xam ne benn thème la rek ñu mel mbir ñu tey waxtaan ay ponk lañu jël ay ponk-ponk waxtaan ci soññeente ci soññ suñu bopp ñu ànd ko ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu régie bi muy wàllu xarala gi sëriñ murid Dia sëriñ Assane Fall di murid saadix kon ñoom lañu àndal ci wàllu xarala gi wala wàllu ci régie bi li nga xam nag moom la indi tey moom lañ leen bëgg a tàmbalee wax waaye li ci jiitu mooy wax ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dellu waxaat ko te du fi jóg ndax coobare yàlla la coobare yàlla ah loolu ku nekk wax naa ko ba tey su nu xoolee rek en âme et conscience nit ku am bànneex ku ne da ngay bëgg ku ànd ak yow ca bànneex ba képp ku ci àndut ak yow wala sa bànneex naqari ko rek kooka mën nga ko jàppe ab noonu kon nag yàlla yàlla ci coobaram lay jëf maanaam ci li ko neex mbir a koy neex bu def ko kon su fi indee nit mu gën a àdduna da koo neex su fi jëlee nit da koo neex su nit woppee da koo neex tawatee da koo neex su nit wéree da koo neex su nit amee da koo neex su nit ñàkkee da koo neex loolu yépp nag dafa lë dafa lëjëlëj ba dafa complexe bu nga xam ni du neex a leeral yépp waaye li ñu bëgg a wax rek xam nañ ko buñ duggee ci baatu tawhid <coughs> ngeen baal ma mooy euh, dañuy jaale Cheikh mun taxa jëm ji fi bàyyi ko waat muy sëriñ mustafaa Dem di doomi sëñ Mat Dem a ku xam njaareem bu ñu la waxee sëñ Mat Dem sëñ Moustapha Dem rek wala nga bokk ci yoon wi sax laa wax te xam ci tuuti bu ñu nee sëñ Mat Dem rek nga xam ko ca njaareem ca magi sëriñ Tuubaa ya sëñ Dem moom nag doon ab xalifaam moo fi bàyyi ko doon nitu xam-xam doon nitu xam-xam doon murit saadix doon ko way ci lim nekk mu miin ko lool xam ko itam di def ci moom seere yi di ko jaale Cheikh Mouhamadou Mountakha ak yoonu murit wépp waaye al ummal islaam yëpp rawatina nag boroom xam-xam yi kon du rëcc mukk lam fi nekke woon ci xam-xam na way juróom nekke woon ak jihaad fi sabilillah te mooy tasaare xam-xam gëm sëñ Tuubaa yaakaar ko doyloo ko te la xam-xam bay bari bari bari bari ak la muy bari bari fu mu dem taxul mu soppiku ci ak taalibe ak bëgg sëñ Tuubaa gëm ko ak wóolu ko kon tey jii dañuy wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sëriñ Moustapha Dem yàlla na tege ci loxol Cheikhul Khadim Cheikhul Khadim teg ko ci loxo Seydina sallam ñu dugal ko ca àjjana yi gën a kawe <coughs> mbokk yi ngeen jégal ma ngeen jégal ma kon ginnaaw buñ ko ñaanalee ba noppi di ko jaale ñëpp nu dikk nag ci li nga xam ni moom moo tax tey nu bëgg a tàmbaleeg yéen jotaayu Pour Saarix ànd ak itam ci caméra bi ngeen jégal ma Abdoulaye Sow moom itam mu nekk ci wàllu caméra bi kon mbokk yi. li ñu njëkk a tàmbalee tey mooy <clears throat> euh, mun nañ ni li ñu war a sàmmal Sëriñ Tuubaa de alxuraan bokk na ci <clears throat> inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu la xaafidun waaye ginnaaw yàlla <clears throat> dafa dénk Sëriñ Tuubaa alxuraan dénk ko lislaam ku ne war nga cee yëngatu waaye rawatina ku ñuy tudd tudd Sëriñ Tuubaa wala kuy tudd ab murit ndax def ni wa jaala al islaama wal quraana wa diatayni lii wallahu ala ma naqul wakilun yàlla dénk na ma alquran ak lislaam lii may wax man sëñ Tuubaa nag soxlawu mu nit garanti ko wala mu bañ koo garanti wala mu nang koo bañ koo nangu ndax yàlla mi mu ko dénk moo ko signé moo ko garanti kon loolu leer nañ dénk nañ ko lislaam ak alquran kon du bu ñu demee ba jëmmi jamono alquran wala ñooñu alquran mel ni luy bëgg a yëg ak tumuranke wala mel ni luy bëgg a yëg ab coono wala mel ni luy bëgg a yëg fitna kenn waru caa jiitu Cheikhul Khadim bu ma nee Cheikhul Khadim nag mooy lu tax Cheikhul Khadim rek ku koy wuyoo ku ne ak noo ko mën a wuyoo te teg ko ci dëgg moo tax jamono yi ngeen dégg ni ñu ngi fitnaal ab sëriñ daara ci njaareem ngir jéng gu mu jéngoon ay taalubeem boor koo tëj fukki fan ak juróom ñaari at sursis te loolu yemuñ ci ndax dañu bëgg nii képp kuñ ñu gisati ci mbedd bi ngay taxawaalu ci doogay daara yi ñu jàpp la jàpp sëb sëriñ wala ñu jàpp la te jàpp sëb sëriñ teg lay alamaan teg lay daan loolu nag du loo xam ne lu guléet la wala lu ñu jaaxal nit ñi euh, lu ñuy wax bukki wiir wiir jaari ndaar rek li am solo mooy alquran moom kenn kenn mënut fexe ba wàññi darajaam wala ñi ci nekk nga wàññi seen daraja wala nga xoqatal leen munta nekk mustahil impossible bu ñu doon dem ba kenn rek des fiy jàngale alquran yàlla du ko seetaan waaye nag yàlla du ko seetaan mooy ñi fi nekk nag te kenn rek desagu fi kenn ku ne war ngaa am taxawaay boo ci taxaw kenn ku ne war ngaa am taxawaay bu ci taxaw xam nga bëgguma dugg ci lu sori ndax bu ñu demee naan ay liberté droit des enfants human human right nangam nangam aqi doomu adama yelle fi doomu aadama yooyu yëpp te mboolem lii yelle fi doomu aadama ñi nga xam ñooy tëral sart yooyu bis bu nekk ñu ngi koy salfaañi ñu ngi koy jaxase yelle fi doomu aadama yooyu xam nga mbir bi dafa dafa flagrant ba ëpp dafa dafa dafa dafa tey bu fekkee dañu jàpp ku jàngale alxuraan di ko tëj ngir jéng gu mu jéng ab xale te jëngul daara ji yëpp de ñett lay doon wala ñaar te loo gis am na exception mu wér leen xale bañ jëng buñ ko jëngul woon ay bakkan sax mën naa jaare ci moom di faatu bu ëllëgee muy benn wala ñaar ndax jëngu loolu benn demal ci prison yi nga dugg ci biir prison yi maanaam kaso yi ci réew mi da nga fa fekk loo xam ne képp ku la ni ñu ngi défendre àqi doomu aadama ba tax ñuy jàpp ab sëriñ di ko tëj ngir jéng gum jéng nit rek jéng boo demee ci prison yi ña la ko doon wax boo leen gisee da nga laan yéen a ñàkk jom loolu rek nga leen di wax yéen ñàkk jom rek nga leen di wax loolu nga leen mën a wax dem leen ci prison yi dem leen ci manifestation yi rek manifestation yi rek yi am ngeen dem ci ngeen gis ñuy traumatiser nit ñi li ñu leen di def en tant que ay être humain ba ci ay mag. benn xale bu ñu jéng ci daara wala ñaari xale mu wér leen ki koy jéng bëgg lu baax rek a tax bala maa dee ñu ni démb du tey mais bu fekkee dañ ni léegi bëgguñu ko toroxal xale wala droit des enfants la ñuy xool wala dañuy protéger nit ñi waa léegi bu yàggul rek demuñu fii ci pont Sénégal 92 pont Sénégal 92. ñu gis xale yee nañ leen fa def vagabond ya fàqmaan yi ba léegi boo boo demee jaar fa gis leen amul benn dëkk booy jaar Sénégal te doo fa gis ay fàqmaan gis xale yoo xam ne ci mbedd bi lañuy ñuy fanaan état bi romb leen régime bi gis leen ñépp gis leen ñuy souffrir ba ñenn ñi di dee ci mbedd yi waaye xanaa bala lijjanti lii ngir àqi doomu ak yelleefam li nga lijjanti xale yi xale yi subir ci biir Sénégal li ñuy subir kenn mësu koo gis ci biir Sénégal kee di lekk di naan ñu téye ko ci kër defuñu ko dara ndax xam nañ ni buñ ko génnee moom sax naa rey boppam ndax mën naa nekk délinquant di sàcc ba ba ñu rey ko wala muy xeex ba dee kan ngeen mos a gin te adduna la nekk ci téere bi yàlla rek a tax ñu ne day jàpp ñi euh, lu ñuy wax naan c'est trop c'est trop nañ def ndànk euh, mos boo ko sosee ba ci miir bi song rek la def. song rek la lay def gis nga yii ñun ñëpp ay être humain lañ ñu koy def ñu leen gën a intelligent plus intelligent que ñoo nekk di càll jàpp seen jàmbur yi ñuy wax yépp tegewul fen waaye nag am na ci loo xam ne responsabilité sëriñ daar yi la ak yaay daara yi ak bàjjani daara yi ak sëriñ si ak ñi dëkk ci àll bi ak ñu yor seen doom parents d'élèves yi ndax loi yooyu ñuy appliqué nga xam ne loi la teg nañ ko ba dañ koy appliqué. ana luy ndey bu ñu demee ci élection tey locale wala législative wala présidentielle wér na ma ni ñoo ñi ñuy tëj ak ñi ñuy yilif ñu bari ñoo xam ne wér na ma ni ki ñu tëj tey yilif na lu mu bon bon nit yoo xam ne bu leen neexee mën nañoo wote ji bu jotee mi ngi mel ni ñu defal bëri dem ci studio bi boobu nee naa leen bari na ñoo xam ne ñu fi ñu toll dànk nañ fanaanal ci Pape Bouba Diallo moom ñu dàqoon ngir studio am na ñoo xam ne dañuy wax am na ñoo xam ne duñ ci boolay wax. mooy lu mooy dangay teg Sëñ Tuubaa tiit fii rek teg carte wi fii nga xool kookee ñu jéem a tuutal ngirub sujjóot te lépp Sëriñ Tuubaa tax bu ëllëgee noo koy fayule li ci kanam raw li bët waaye sëriñ daara itam yeewu jot na lii day waxtaan woo xam ne fii lañ koy jaarale rek waaye xam ngeen nun duñ toog fii rek di wax waaw am na ay yëf yoo xam ne souterrain lay doon du lu ñuy nëbb nag déedéet maanaam ñi nga xam ne ñoom la loolu di dal bu ëllëg rek di ngeen xam lan la jóg jël saw carte wote ji lan lay jariñ bu ëllëgee di ngeen ko xam waaye daal Sëriñ Tuubaa mi ñu dénk alxuraan ak lislaam nun de dinañ ci wax bu wér-wér ndax noo ngi tudd ñu ngi tudd tudd Sëriñ Tuubaa noo ngi yaakaar Sëriñ Tuubaa doon taalibeem doy la ko ci lépp te li metti sax mooy réew mi nu nekk mboolem ñoo xam ne ñuy def lu médiocre koo gis muy def lu médiocre rek il est médiocre nit ku médiocre du def lu médiocre kon waxtaan moom loolu foofu ci yem beneen bi mooy Cheikhul Khadim ndénkaan yi nga xam ne dénk nañu ko ma jukki ci leen rek indi ko mu wax ni bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim man talaba allaha tabaraka wa taala intafaa wa nafaa wa man talaba gayra allahi tabaraka wa taala indafaa wa dafaa addalluna ala addalluna ala arbaati aqsam dallun ala dunya wa dallun ala al ibada wa dallun ala al ilm wa dallun ala allahi taala Sëriñ Tuubaa nee na bismillahi rahmaani rahim Sëriñ Tuubaa bind moo wax nee na ku sàkku yàlla suñ boroom bu la nee ku sàkku yàlla nag mooy ngay bàyyi yàlla xel di def li mu digle di def li mu te di bàyyi li mu tere te daw jëm ci moom nee na képp ku koy def intafaa wa nafaa da nga jariñu te danga nga jariñe nee na da nga jariñu yow mi koy def ki aw ci yoonu yàlla ku la topp ko ànd ak yow ki ci aw rek laa wax di nga jariñu yow dinga nga jariñe waaye wa man talaba gayra llahi tabaraka wa taala in dafa aw dafa képp koo xam nag sàkku nga leneen lu dul yàlla mooy contraire bi rek nee na di nga nërmeelu di nga nërmeel keneen di nga nërmeelu di nga nërmeel keneen Cheikhul Xadim wax loolu mu ni teg tegtalaate ñi ñi ñi gide nit ñi ñiy gide nit ñi nee na ñeenti parti lañ maanaam ñiy gide nit ñi leen di womat ñeent lañu ñeent ñiy womat nit ñi ñeent rek lañ nee na ñiy tegtalaate di la tegtal di la indiqué nee na ñeent rek lañ ñeent lañ ki ci njëkk mooy dallun al dunya nee na ki lay tegtal àdduna wa dallun ala al ibada ak ki lay tegtal jaamu yàlla wa dallun ala al ilmi ak ki tegtal xam-xam wa dallun ala ala ki lay tegtal yàlla waaye ku ci nekk nag wax na lu mu jariñ nee na wa man dallaka ala dunya faqad fatanaka nee na képp ku la tegtal adduna di la ci wommat di la ci woo di la ci xëcc bëgg la caa jëme ci anam yépp nee na kooko teg nela la fitna wa man dallaka ala dunya faqad fatanaka ku lay tegtal dunya rek nga xam ne adduna rek kay addunaam adduna rek kay mbiram nee na faqad fatanaka fitnaal na la indi na la fitna joo xam doo tàggoog moom bu mukk wa man dallaka ala al ilm wa man dallaka ala ala al ibada faqad at'abaka nee na képp koo xam ne mi ngi lay tegtal jaamu yàlla nee na sonal na la indil na la coono déglu wax ji képp ku lay tegtal jaamu yàlla ku lay xëcc jëme ci yàlla nee na sonal na la teg na la coono mas naa fee wax loo xam ni mën nañ koo mën naa cee indi prix nii wax naa leen fi woon ca ginnaaw bu ngeen dee seetaan émission yi su ni leen li nu def jafe-jafe mooy li ñuy jéem a nab nabe ko néew di jéem laa biir suñu bopp di laa bokki taal bi jullit yi ci ñun ñëpp ñu jëm ci yàlla saa su nekk bakkan dafa bëgg bànneex bànneex rek la bëgg kii wax nag di la tegtal di la tegtal jaamu yàlla am na ci loo xamante ni bii bakkan bëgg ko kon man maa ngi lay sonal ndax man li ma lay tegtal léegi ab coono la ndax bakkan bakkan da koo bëggul moo tax Sëriñ Tuubaa ni wa man dallaka alal ibaada faqat at'abaka waaye kel coono ban coono ku la tegtal jaamu yàlla nee na sonal na la demal julli ji demal jàppi defal lii nangamal nangam joxal addiye defal lu baax defal lii nangam jullil guddi del woor del yooyu yëpp suñ Tuubaa nee la ku la ku la ciy xëy rek sonal na la waaye coono boo xam nag dafa limite day jeex ndax day jeex moom coono boobu nag bu jeexee la ca ginnaawam du jeex mooy bànneexu bakkan boobu nga bëggoon dëgg dëgg dëgg mooy ñëw nag boo bàggan bànneex ba bakkan war a dëgg dëgg moo tax léeg-léeg may wax ni awliyaa ullahi yi nit yàlla yi ñun ñëpp dañoo defe nii loolu ñoom xale yi naan ñun dañoo nànd kii dafa nànd dafa mboŋ dafa yeewu non yooyu yëpp déedéet maa ngi jéglu ci kat bi mais ñi dëgg-dëgg te mboŋ te nànd dëgg-dëgg mooy nitu yàlla yooyu ñoo ñu ñoo ñoo ndax xam nañ ni lii nu nekk lépp du bànneex bu du bànneex dañ ñoom dañoo dañoo dañoo dañoo trouver le vrai vrai plaisir lañ trouver ñoom lañ gis teg seen bët moo tax fi ñu toll nii mënatoo leen jëmee fenn fu dul ci yàlla nag plaisir éphémère rek lañ gis li ci kaw rek muy fëy nii rek waaw loolu nag doomu aadama yàlla ko bind waaye il faut nga jëm ba bàyyi xel ci loolu ma ñëw ci ñetteel bi sëñ Tuubaa wax waman dallaka alal ilmi faqad arshadaka nee na ku la tegtal ku lay indiqué ku lay jëme la ci xam-xam ngir nga jàng fakat arshadaka jubal na la teg na la ci yoon maanaam giide na la giide na la képp ku lay jëme ci xam-xam giide na la guidance bu baax nag mu des benn mu ni wa man dallaka ala llahi tabaraka wa taala faqad arahaka boobu bu mujj bi nag nee na képp ku la tegtal képp ku lay wommat képp ku lay xiirtal xëcc la di la indiqué yàlla suñu borom faqad arahaka noppal na la ci biir ca ci biir wax ji bu ngeen jàngee wax ji am na fu mu waxee ne kee daf laa sonal fii mun la noppal na la xaw ma di ngeen wax jëm déet wa man dallaka alal ibaada ku la tegtal jaamu yàlla faqat sonal na la wa man dallaka alallaahi tabaraka wa taala ku la tegtal yàlla su borom noppal na la kon kee lay sonal dafa mel ni yàlla lay tegtal ki lay sonal daa mel ni kon yàlla la lay tegtal ki lay sonal ki lay sonal ngir jaamu yàlla kon yàlla lay to da lay noppal wa man daalika ala llaahi tabaaraka wa la tegtal yàlla noppal na la loolu Sëriñ Tuubaa moo ko wax euh, beneen bi topp ci wax ku tedd gi ci jataayu Murid Saarix nu ànd ko yéen fii ci site bi Saxum Touba point net mooy tajribul qalam wal midaad li wajhi man jaada bil widaad man araada an yanaala kulla xayrin fi l xaali wal maali fal yaqudi l abyaatati wal yamala bima bihi yamuruhu man naqala lazim shukurallahi binnaamaai wala tamil biha ila al ahwaai wa kun ala al ilahi daa tawakkuli muctamidan alayhi duna kasali wa lazim alkitaaba walgarraa wa fariq albidaca wal ahwaa mucadiman li xurumaati alcaarifin qaabila acdaari albaraya kulla xiin Sëriñ Tuubaa wax foofu ni ñun ñépp lay wax ñépp ñépp mu ni jël na xalimaam di wax ngir jëmmi yàlla suñu borom nee na jël na xalimaam mu ngi mel ni tey ji man man maa ngi nii toog di wax ngir jëmmi seexul xadim ngir jëmmi ngir jëmmi yi seexul xadim ngir nu jariñu Sëriñ Tuubaa nee na jël na xalimaam ngir jëmmi yàlla waaw jëmee nag ci képp koo xam ne bëgg nga lii mu lay bëgg wax koo xam ni bëgg nga lii muy wax ne nag man araada an yanaala kulla xayrin fil xaali wal ma maali doona dayri nee na su fekkee ni bëgg nga am yiw yëpp yëpp yëpp nga am ko yiw yëpp ci tey ak ëllëg waxul tey tey ak ëllëg soo bëggee am yiw tey ak ëllëg ci lu amul benn lor du ànd ak benn lor fal yaqudil abyaata tii wal yaamala bi ma bihi yaamuruhu man naqala nee na lii ma lay bëgg a wax man sëñ Tuubaa jëlal bayit yi ma lay bëgg a wax te nga jëfe ko nag nee na boo ko déggee man bu ma la ko waxee Saxum Touba nee na sëñ na nga jëfe ko yow may seetaan nee na su ko defee di nga am li nga bëgg fii aw yiw fii ak fan jëm ci lu lor bay di nag laa bëgg a wax léegi laazim shukurallahi bi naamaai nee na waxul na nga sant yàlla de daf ne laazim ci làkku arab laazim baat bi mooy taqol taqool maanaam bul tàqali ko moom a chaque instant del sant yàlla laazim shukurallahi bi naamaai nga ni ko waa ci lu may sant yàlla mun la bin naama ay ci xéewal yi mu la defal waaw waxul tey nga sant ko bàyyi déet nee na saa yu nekk dans ton intérieur avec ton âme et conscience yow ak sa bopp dong xalaatal bu baax a baax a baax nga sant yàlla suñu borom ci xéewal yi mu la defal nit nag mën naa toog fee ni man xéewal yi jotuma ci wala dama ciy gën a néewle baax na li wér daal mooy yàlla nee na ci alxuraan su ngeen doon jéem a xam li ma leen defal ci xéewal te mun leen a xam nu toll kon Serigne Touba nee na boo bëggee am yiw tey ak ëllëg te doo am lor nanga nga saxoo sant yàlla na nga na nga saxoo na nga saxoo sant yàlla laazim shukurallahi bi naami wala tamil biha ila al ahwaai wala tamit nee na xéwal yooyu la yàlla defal bul ko jëli ko fooyee jëme ko ci ay caaxaan ci xeeti caaxaan yépp nag yàq wala tamil bi ila al ahwaai bul ci topp sa bakkan li lim la ci woo rek nga di ko def ci xéwal yi la yàlla xéwale te loolu gis ngeen ko Sénégal Sëriñ Tuubaa nag nee na boo bëggee yiwu tey ak wu ëllëg ci lu lor bul def loolu waaye sant ci yàlla waaye mais ay xéwal nu ñu ci sant yàlla ay xéwal nu ci sant bu dee sa doole ji nga am mën nga cee liggéey mën nga cee jaamu yàlla xéwalum xel mii mën nga cee génn xalaat yu rafet te lislaam tax xéewal gi nga xam moom lañ gën a miin gën koo xam mooy alal xaalis wala yeneen yeneen ko yeneen xeeti alal yeneen xeeti xéewal yëkkati ko nga def ko ci yoonu yàlla su borom waaye nee na bul ko fooyee bul ko caaxaane bu ci fo ak di ci caaxaan waaye sant ci yàlla demal ubbi ci daara demal fekk daara ñu def ci dimbali ci doomu aadama yi solidarité da ci am te yàlla tax nag te yàlla tax waaye ñu moytu Sénégal ni ñu koy defee léegi. ci télévision ak yeneen jimaam nga xam ne ñëpp daanaka balaa kenn yaakaar ni joxe nga rek ñu génne ko télévision bi wala feneen tool la ñu wax ko li ëpp ci nit ñi ñu si bari kon jëmm yàlla mooy tax ba noppi jëf ji soo ko mën a egg fi mu jëm maanaam du doon gistal Sëriñ Tuubaa nee na li ñu la jox taqoo cee sant yàlla te bul ci fo bul ci caaxaat bul ko jëme ci lu bon mu des ban wakkun alal ilaahi daa tawakkuli muctamidan alayhi duuna kasali mu ni wakkun alal ilahi da tawakkuli ne nag ba tey ci yi digal ngir nga nekk am jàmmi àdduna ak alaxira te doo am lool nee na del wakkirlu ci yàlla ab jullit day wakkirlu ci yàlla wakkirlu nag buñ ko bëggoon a firi taxaw fii rek tey dinañ def ñeenti émission ci wakkirlu waaye ñëpp xam nañ luy wakkirlu maanaam wékkal sa mbir ci yàlla suñu borom bul ko wékk kenn wékk ko yàlla su borom waaye sëñ ay wax boo boo ko déglu bu ñu nee nee na déglul daaneel ba moo tamit daan alayhi doona kësali nee na sukkandikul ci yàlla rek bul sukkandiku ci keneen na yàlla di sa buur sukkandikul ci moom bul sukkandiku ci keneen waaye nag doona kësali xool sëñ Tuubaa fi mu jeexale doona kësali xam nga fi mu toll bu ma ko waxee ñu bari dañ daan ah wax na dëgg de sëñ Tuubaa dànkam wax na dëgg man cal waaye mun na ne duur a waxum sëñ Tuubaa ni la waxuma la nga sukkandiku ci yàlla tëdd di nelaw naan lépp dina ma fekk fii duuna kasali ci kaw lu dul tayel laa wax demal sukkandiku ci yàlla jógal dem boo waree sonn nga sonn ba tëdd jot nga tëdd sukkandiku ci yàlla lu yàlla def ci ngoon nga xam ni léegi la dogal waaye tëdd fi nga tëdd jaaxal na naa yàlla dina ñëw de sëñ na waxuma la loolu doon a kasali laa la wax waxuma la sukkandiku ci yàlla goo xam ne du ànd ak jéema a sabab lu dara tëdd fa nga tëdd rek naan wakkiru naa ci yàlla su borom ak naan wakkiru ci yàlla dem na ba ci xew ci réew mi nii ñu bari terme boobu dañ koy jëfandikoo inju injustice bu am wala lu xew ñu ne ah yàlla nangam nangam nañ bi yàlla baax na nañ sukkandiku yàlla rek yàlla ba keroog la ba ker nan ba keroog yàlla duñu fekk fi lijjanti duñu suñu problème bi nan toog yàlla daa wax ñu ñun ci alxuraan ba noppi waaw inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim nee na li nekk ci yéen li fekk changé wu leen ko man ma ko changé maanaam décret final bi yàllaa ko yor mais nee na yéen a jóg nag def action yi ma yor décret final bi dañuy toog rek naan daalee alxuraan yi nañ ah yàlla dinañ dimbali nañ leen bàyyi rek nangam dinañ leen bàyyi ak yàlla rek nañ ay ci nañ ñu bàyyi yàlla yàlla ngi ñuy xool tooñ gu dul dakk ba noppi nañ yàlla da ngay jóg ba noppi jóg ci mbir mu déggu ci yow yàlla fekk la ci mosu leen a gis kenn ku ku toog fi mu toog naan yàlla de amul musta am mustahil walaazim alkitaaba wal gharaa wa faariqi albidaa wal ahwaa bul fàtte ni sëñ Tuubaa ñeenti bayit la waxoon ay bayit la waxoon dala noonu maa ngi lay dénk lii ma lay dénk yow mi seetaan sàq bi na nga ko jëfe na nga ko déglu te jëfe ko bu leen fàttee ci tàmbali waxul walaazim alkitaaba wal gharaa wa faariqi wa faariqi albidaa wal ahwaa mu ni laazim ñëw na ñaari yoon laazim mooy taqool laazim sukra waxoon ne la taqo del taqoo del taqoo sant yàlla bii mu ne la laazimil kitaaba nee na téere bi yàlla bi alxuraan bul tàggoo teg moom waaw taqoto moom moo tax ku mu mën a doon rek war ngaa jéem a fara ijji di nab nabit góorgóorlu laazimil kitaaba la wax alkitab mooy alquran taxawal ak moom di ko jàng bu doon benn saar rek ngay jàng permis sax wala ñaari saar sax de ko jàng benn hisib sax de ko jàng te ànd ak gaa yu baax yi nag nee na gaa yu baax yi foo leen fekk na nga dem seeti leen sang si alxurul ma yaamin sang si nanga nga dem ci ñoom lu baax lépp na nga ci jëm bul yem ci téere bi de da leen di ak sang yi. ak lu baax lépp demal ngir la ma la waxoon nga am ko wa faariqil bidaa wal ahwa fii nag neen fi taxaw tuuti ñun bokki taal bi yépp ak jullit ñëpp wa faariqil bidaa sëñ fii da lay digal tere la fii déglul gis nga boo déglu xaw ma yéen ngi déglu waxtaan jëf da laa digal ba noppi tere la wa laazimil kitaaba taqool téere bi wa faariqil bidaa bàyyil bidaa nga bëgg a taxaw téere bi ndox sax ci bidaa de sëñ bi la déedéet boo dàqoon a jàng ñëpp alxuraan bay tarikaam bi ñetti yoon te bàyyiwoo bidaa itam man waxuma ak yow man sëñ Tuubaa da ngay téer téere bi nag bàyyi bi daa ak sa topp sa bakkan wala waa topp sa nafsu ñaar yi neen na koy bàyyi feetal ni taxawal ak téere bi ak gaa yu baax yi sang si mun la nag bàyyil nag bi daa bi daa nag xam ngeen ko bari na ci yoon Sénégal léegi loo ne yu bari bari yoo xam dara bokku ci ba ci yoonu murid wi wér na leen bu Sëriñ Tuubaa ñëwaatoon tey wala bu ñu doon liste keroog bu sëñ bi sosoo yoon ba ni mu doon jëfe ak mag ñi ni ñu na ci loo xam ne nit ñaa ngi koy def loo xam ci jotuwul ak yoon wi dara te loolu it bi la bi la ci yoon wi yoo xam nit ñi koy créé rek bu dee sax lu baax lu ñu mën a dégg lu xel na ko wax waaye da ci am yoo xam ne moom kenn xamul lu mu doon kenn xamul lu mu doon dana doon ciy wax dana doon ci col dana doon ci ci xeet yu ne dañ ko def rek waaw waaw xasida yi sax mën naan am na ci yoo xam ne ñu koy bidaal waaw ndax façon jàng li ñu koy jànge waaw bidaa la parce que ñëwul woon noonu waaw manqué wuñu ay daaj sëñ Mayib ak yeneen ak yeneen sëñ Aline Fall ni waa kuréel yi def. mais am na ci yoo xam ne xeeti daaj yoo xam ne bi la bokkul ci yoon bu fi sëñ Tuubaa ñëwoon koy ku ko daaj xalaatoo ko daaj sax bu ñu doon sëñ Tuubaa ngi am na ñoo xam ne xalaatoo daaj boobu daaj sax sëñ Tuubaa di ko dégg xalaatoo ko ndax fo la fo am po la waaw am po li mu ni ñeenteel bi nag ñeenteelu bayit bi mooy na ngay màggal nit al aarifina billahi al aarifin la wax waxul rek ala nit ñi xam yàlla nit yàlla yi boog nitu yàlla rek ngeen ko mën a dégg di leen màggal di leen jox seen wàccuwaay nit koo xam ni sentir nga ni kii war koo jox wàccuwaay ndax xam nga ni day am loo xam ne léeg-léeg boo koy def sax doo ko tey léeg la nga màggal nit façon boo xam ni instinct lay doon boo xam buy ñëw c'est automatique ndax day mel ni dangay xeeñ Sëñ Tuubaa wala mooy xeeñ yàlla waaw léeg-léeg nga koo xam ne yow yaa koy sentir sa bopp ni kii war ko màggal loolu man nag ñëpp a ci am li ma wax lu leer na ku ci xam na loolu loolu nag mooy aarifina billahi man nit yàlla yi nga xam ne ñoom dañoo xam yàlla nit ñu baax ñu màgg di Sëriñ Tuubaa nee na dee leen màggal warmaal leen jox leen seen wàccuwaay qaabila aadaaril baraaya kullahi nee na nangul it nag excuse yu ñëpp diw mu ne ah maa la tooñ baal ma àq man ni ma koy tàmbalee saa su nekk ni maa ngi baal ñëpp àq balu naa ñëpp àq ci Tuubaa ne accepté leen seen excuse boobu nangul leen gent bi loolu itam bu ko waxee dañ ciy jànge ni la mu waxoon ca alxuraan ci ak bidaa ba maanaam doo kenn mënut a dëkk ci di jéglu rek nag maanaam bis bu ne nga nga bis bu ne nga tooñ jéglu nga xam ne bi semaine bu nekk di ci tooñ ñetti yoon jéglu ñetti yoon semaine bi lépp waxuñu loolu loolu waxuñu ko waaw boo déggee ñu naan jégal itam loola day doon benn yoon mu jeex wala ñaari yoon ñetti yoon bokk waaye dëkk ci nag moom loolu euh, kenn moom kon loolu bëggoon naa ñu dikk ci daal di laaye sama bokk biir di ñaan yàlla suñu borom yàlla na nu yàlla may xolub dégg wax ji te jëfe ko tàmbalee ko ci sama bopp man ak képp koo xam ne bëgg ngaa jariñu beneen bi topp mooy euh, li nga xam ne moom lañu war a waxtaane jëmale ko ci tolluwaayu fi nga xam ni moom la nekk ginnaaw bi leen waxee li Cheikhul Khadim wax ba noppi yaakaar ni kenn ku nekk dina ci jariñ ba tey génnul waxi Cheikhul Khadim mais Sëñ Tuubaa boo dee topp ay waxam ak i jëfam euh, dañ naan l'histoire se répète wala def c'est-à-dire le ba doon wax naan il a dépassé de loin ses contempor ses contemporains et ses prédécesseurs il a dépassé de loin ses contemporains et ses prédécesseurs nee na ñi mu tolloon jamono ñëpp ak ñi ko jiitu ñëpp Sëñ Tuubaa dépassé na leen bu yàgg dégg nga wax ji dañ ñi mu tolloon jamono ñu toll nee na waxaaliwul waaye ñi ko jiitu woon la wax dépassé na leen bu yàgg waaw kon nag li mu bëgg wax foofu mooy tey jii dem nañ ba su ñu wax mbuur xaw ma nan ñu fekk fa ay kër ñu toj ko màbb ko. mu wér leen ñaari téeméeri famille fi mu toll ñu ngi ci njàqare ak fi Sénégal toll ak fi àdduna toll ñu ngi ci njàqare ak seen doom ak seen njaboot ñu ŋàbb ko toj ay bulldozer au ko de quoi ci turu état ban état ban raison ban loi benn nangu naa ñu respecté ay loi kenn sañu koo bañ waaye ban loi ngay respecté maanaam dama daan wax naan le Sénégal est mal géré les son les Sénégalais sont mal protégés yorin wu bon lañ ko yor kenn aarul nit ñi itam mooy leen dañu forêt classée lañ nekk dañ faa tabax ay kër yoo xam ne forêt classée la forêt classée moom kenn du fa dëkk da waa sëñ bi forêt classée état wax na dëgg forêt classée kenn waru faa dëkk mais xanaa ab état koo xam ni ka nekk ca fungi limi lu mu fanaanoo xam nga ko bala ngay bàyyi ba muy teg ñetti muul ñeenti muul bu tegee benn muul nga ñëw ni ko al mun la diw ma ko jaay nga dem jàpp ko ko jaay affaire ba jeex au moins ñaari saako ciment lay ñàkk am déet waaye nga bàyyi ba mu tegale deux ton trois tonnes quatre tonnes coulé dafa fenêtre indi njaboot ga daj lu daal commencé rek ni alhamdulilah fii sax kër rek laa bëggoon mën a maa dee nga ñëw màbb lépp te bi mu koy def yaa ngi teg sa bët lu tax bi mu yëkkatee eggagul un mètre sax yow état am nga droit lu tax ñu woo toj ko wala nga ne ko arrêté nga bàyyi ko muy tabax rek te wér na yaa ngi koy gis yaa ngi teg sa maanaam bu fekkoon day malaaka sax moom boobu muy malaaka ba guddi lay tabax te gën dugg sax ngeen da loo xam ne juróomi at mi nga dajale di korkoral yaa ngi ciy teg sa lu tax terewoo ko ko bi muy tàmbale comme Tobago ak feneen ak feneen ak feneen mais nga bàyyi ko ba mu noppi nga ni fii forêt classée la ko nga xam ne loi bi da koy tere waaw mais sëñ bi est-ce que nit bu demoon tey ba place de l'indépendance place de l'indépendance gee ñu nekk ma jox la exemple rek nga xam bu nit demoon tey foofu wut lu mel ni ab wut wut lu mel ni ab tànt wala mu gas jël juróom benn muul rek ndax dafay jàkka ju ndaw fii laay liggéey bu nga ndax dina ndax ndax muul dina tege je vous la question ndax bu nit demoon place de l'indépendance am bureau ci côté bi ni vraiment fii mën naa fay def benn mbaar boo xam ni yaatu na féex na jardin bi su ma kéetee comme bureau bi amul ndax dana teg benn bant laa wax lu tax bàyyiwuñ ko mu teg benn bant lu tax état di bàyyi ñii lu tax mais saas ku ne xam na ni loolu nag c'est waaw tey tey tey euh, ak nit ñi baaxul waaw waaw ma jox ci benn rek sëñ Tuubaa li tax ma indi ko ji dafa ma sa ñëw xuru Mbàkke jóge Njaaréem bi ko tubaab bi tey résidence surveillée xam ngeen ni jamono yii noo ngi waxtaanee. nekkub sëriñ bi njaareem ci 15 ans yi ñoo ngi ci ñaareelu émission bi ajjuma lay am 9 ajjuma ju nekk ci sàq mi ak YouTube bi léegi fi may wax yow nii sëriñ Tuubaa bi mu jógee njaareem ànd ak tubaab bi doon ñëw di siyaare si xabru yu nekk xuru Mbàkke di ko siyaare si bi mu ko siyaare see bay dellu oto tubaab yi dañoo bari woon maanaam tubaab yi ko doon escorté ànd ak moom dañoo takk woon ñaar wala ñett oto tubaab lañ daal ànd ak sëñ bi di dellu jaar ci kaw tooli jàmbur yi. te boobu ab nawet la ñu jaar ci tool yi yàq lu bari sëriñ bi ni woo leen leen ñu ñëw mbooleem fu ñu fi jaaroon yàq ko rek nañ ko wax nu fay ko xoolal loolu sëñ bi yàqul de maanaam oto yi àndoon moom te oto yi tubaab yi àndoon moom yàq tool yi ñoo yàq tool yi jàmm di sëñ bi ni nag fu ñu fi jaar te yàq ko nañ leen loolu ñu fay ko yéen ñiy toj këri jàmbur yi nu ngeen di def ak loolu nu ngeen di def ak boobu. yumhil wala yuhmil day yeex rek mais du nee na yàlla suñu borom na leer nañ waaw fi may jeexale nag ci tënk mooy euh, nit ñi nañ am xel te nekki nit euh, tey jii ci li jëm ci yoon wi ma jox leen ko rek information ñett fan ci ginnaaw ñoo ñuy wax góor jigéen yi ñaan borom ñaari tur góor jigéen yi waaw ku ñu bëggoon a indi Touba ñu signalé ko fii moom dugg fi du yomb ku nekk fi nag di ko def moom dañ lay rey moom rey lañ lay def na leer ñëpp waaye ku ñu jëlee ci àll bëgg la fi suul muqaddamatul xidma veille au grain dara mun leen a rëcc waaw say ba nga soppi tur wi yaa xam loo def mais doo jàll bi ñu ko indi Touba ni ñu ko indi Touba ñu dégg ko ñu pare ñu daw ni dañ dem Daaru Salaam teggi dem Daaru Salaam waa Daaru Salaam yëg ko ñu ne dañu dem Mbàkke Xewar gone yi yëpp gone yi Mbàkke yëpp gën nekk ci jumaa ji di xaar néew bi buñ ko gisoon duñ ko dóor dañ koy lakk lakk lañ koy def ni Inde ni Indien def gis nga boo seetloo épidémie bi muy wax réew yi ci gën a loru ci mbiru mbas mi Covid 19 yi ci gën a yi ci gën a sonn mu benn bokk bu koy wax Amérique li mu deele kenn deelewu ko li mu deele ci Covid 19 kenn deelewu ko ci mbirum góor jigéen moo ci gën a taxaw boo ci noppee Europe nga ci teg. pays Scandinave yi ak biir France ak yépp ni ñu bëgg a taxawalee góor jigéen ñii dee ci mbas mi ñoo ci ëpp Afrique gii nga xam ne ci la nekk xoolal ma la wax bu baax ni ko mbokk mi waxee Afrique réew mi ëpp la lu mu deele ci Covid ci corona mooy Afrique du Sud mooy réew mi jëkk a légaliser mbirum góor jigéen ci Afrique moo ëpp la lu mu deele ci corona. pourtant yeneen réew yaa ngi fi de man li ma jaaxal mooy coow li li corona yi bari bari bari yéen a ngi dégg mais am na réew yoo xam ba léegi laalagu leen. xaw ma jotu détail yooyu sax li ma bëgg a wax rek mooy il ne faut jamais penser bu kenn xalaat ni sénégalais yi naïf nañ ñàkk bañ nañ seen diine gëmuñu seen diine bëgg nañu tubaab bi bëgg nañu occidental ba tax ngeen yaakaar ni assemblée nationale ay député dana fa war a man a taxaw di légaliser lu jëm nooru ay droit góor jigéen benn maanaam député yi rek laa loolu sax du parce que loolu député yi rek laa jëkk xool député yi député bu ne da ci kër bàyyi fa soxna bàyyi fay doom ku ne da ngaa jóge ci kër gi bàyyi fa soxna dem assemblée nationale xanaa bu ñu ko dërul mën a nekk parce que majorité ko du dërul am kook kenn mënut a fexe ba di def ko mais buñ bu fekkoon nag léegi dañoo dañoo dañoo dañoo moo leneen ba def ko nag boobaa ngeen di xam Sénégal waaw am na foo xam jërut egg jërut jéem a egg parce que waxoon naa ko ci ginnaaw dinaa ci dellu siwaat xam nga dama noonu boo gisee. ñuy wax ordre mondial ordre national la ñuy jëkk a appliqué maanaam ordre national mooy seet li ñu bëgg a nag li ñu bëgg a def euh, nationaux yi li ñu leen bëgg a teg bu ñu ko nangoo réew yëpp pour nag ko ordre mondial soo ko taxaw nag waaye mënoo taxawal ordre mondial te taxawal ko ordre national mooy fexe ba li nga bëgg a teg nit ñi ñu nangu ko bu ñu ko nangoo nag li ñu bëgg a teg àdduna bi yëpp réew yi nangu ko fi ñu toll ci làmb lañu nekk rek essayage période d'essayage lañ nekk bu réew yëpp nangoo nag ñu soog a def ordre mondial. am na sax benn tubaab bu ci wax euh, dinaa ci dikk éléments yi yëpp ndax bi may wax ci alxuraan ji euh, ngeen jéggal ma foofu am na diggante su ma waroon taxaw naa techniciens yi seenu xarala dina ko def bi may wax ci alxuraan ji ak sëñ daara bi ñu doon atte foofu am na sëriñ daara bi di ngeen fi gis loo xam ne dañ leen ko tegal élément lay doon incha allah waaye lii ma leen di bëgg wax itam du lu ñu fabriqué di ngeen ko gis muy ab vidéo nga teg seen bopp ngeen xool ni ñu xalaatee. ni ñoom loolu la ñu xalaat ci àdduna bi ak umaanité li ñu leen bëgg a def ak fi ñu bëgg mu jëm ñoom bu ngeen ko seetaan nag ngeen déglu lan lañ lan lan nee nañ ordre ordre mondial inévitable mënut a ñàkk non ordre divin rek mooy nekk xanaa àdduna day tukki mais mbir mi day egg foo xam ni ñëpp dañ def li ñu war a def waaye nag rabbu samawati wal ardi danañ xam ni moom moom suuf moom kaw kon la leer ñépp kon lii bëggoon nañ ko wax li ma ci doon rek mooy. Euh, mbirum Yirim Seck Yirim Seck Cheikh Yirim xobu Yirim sekk vraiment man du ma du ma xam ndax am na loo xam boo ci jaaree sax waratuñ laa invité ci plateau ngay toog waaw su fekkee di nga yëg dara mënatoo toog ci plateau yi àdduna yépp bu ñu la te invité ba nga toog ba nga waxati nit ñi bàyyi ba am ci yow considération ultérieure boo gisee ñu exilé nag jékki jikko réew sëñ Atou Diagne li mu liggéey lépp nga xam ne wenn weeram ci kaw àdduna rek wenn weeram wenn weeram ci kaw àdduna sëñ aatu liggéey yow yërim li nga liggéey lépp lépp lépp ak liggéey liggéey ak li nga liggéeyagul ba àdduna tukki wenn weeram mënu koo jot wenn weeram ci defal yàlla suñu borom wenn weeram laa wax wenn weeram wu mu liggéey rek ñu jël ko teg ko ne seet yow li nga liggéey lépp lu jariñ humanité wala l'islam wala dara benn weeram rek bu ñu doon liggéey waxuma doo ko def ba at bu ñu téeméeri at boo ko doo ko def ñu la gën a nekk intellect fop jàng diine jàng lépp tel nan ngay toogee ci plateau bëgg a théoriser ce n'est pas fortuit waaw si on vous paye suñu yoon newu ci waaye nan ngay toogee ci plateau ñu invité la invité la ñaata nit a fi faatu. nga focaliser wu seen at ni corona moo ko rey yow bu la ko docteur waxee sax yow est-ce que théâtre docteur bu la ko waxee yow dégg naa biir gi nga ni lettre boobu xaw ma ndaw si jaari saw kenn war ko war siiwal waaye war ngaa siiwal loolu bu amoon suñu atu bu fekkoon loolu moo ko yóbbu war nga ko siital lu ngeen sëq lu ci sa yoon bu fekkoon ne am na sax supposé duma leen jàngoo prof duma leen jàngoo journalisme man maa ngi sama maîtrise en communication de masse et relation publique public relation xam naa ko waaye li ma la wax mooy jàng la Sëñ doon wax naan mbaam mu yenu téere mooy loolu mooy jàng ba noppi manque d'honnêteté xam ni déontologie mooy ko docteur yi sax xam nañ ni bulletin santé nit kenn du ko wax yow nga toog pub télévision pour lan pour bëgg loo xam ne xëy nañ fay nañ la nga bëgg a wone ni maanaam taalibe yi ak murid yi bu ñu ko déggee at ni ci yoonu murid léegi dana tax ñu xam ni corona am na. c'est pas fortuit ça c'est trop petit <laughs> yéen def yëpp xam nañ ko ça ne sert à rien <laughs> c'est trop ridicule ba bu ñu lay invité ba adduna tukki ak plateau bu ñu la mën a invité dootoo toog di wax dama ne loo au nom de quoi ngay toog ci plateau naan waaw ndax gis ngeen ko xam ngeen ni corona ko mais lu ñàkk lu tax nga di ko wax même bu amoon laa la wax lu tax ban droit nga teg ba wax ko yow déontologiquement journalisme bi nga jàng foo ko teg bokk ko Yérim Seck bay wax loolu ci biir ci plateau fan nga ko teg déontologiquement la wax maa ngi lay woo ci journalisme bi nga jàng règle yi maa ngi lay laaj foo ko sukkandiku waa hôpital principal ñoo la ko wax ñoo leen demal télé ba nga wax ko ah c'est rek ngay def ko dafa ridicule ba ëpp waaw théorie yi ngeen def ngeen teg fi suuf ñun taluñu yooyu jàng alxuraan ak jàng xasaayit mais nag bu leen bu toog ci plateau mukk ba yaakaar ni moo ba gën a tuuti la ngeen di wax rek nandu na ko bu yàgg xam na lépp c'est-à-dire on n'a pas le temps nag waaw amuñ jot googu vraiment mais nag trop c'est trop waaye li wax li gone gi soog a jàng primaire sax xam nañ yow bu loolu amoon sax ne loolu sax moo ko yóbbu yow amoo droit toog ci plateau di ko wax ñaataa fi dem lu tax nga focaliser wu ci moom parce que tu dañ laa fay wax ma lu tax. ñoom xam nañ na nga jógee Jeune Afrique Jeune Afrique li jënti nañ nañ fa jóge di nga dugg ci kaso bi man dañ nekkaat nañ ci di waxaat bi nga duggee ci kaso bi ba génn wax nekk nañ ci di waxaat il faut respecter les gens sëñ at du sa morom soyons sérieux ça c'est trop ridicule amul lenn la wax parce que déontologiquement amul laa wax loo mën a wax toog ci plateau adduna sëpp ñu man sax seetaanu ay déw nga toog di wax parce que aw ma jot googu toog la xool non xalaatuma ko waaw kon mbokk yi dama leen di bàyyi rek ngeen déglu li nga xam ne moo aju ci euh, sëriñ daara bi nga xam ne moom laa leen doon wax muy moom lañu àtt tëj ci njaareem muy li ma leen wax léegi ci alxuraan ji ñu jeexale ko kon ñu bàyyi leen ngeen topp ko. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki xarit mbokki am di jàmm ñu ngi leen di yëgal ne sëriñ Ibrahima Diang mi nga xam ne moom lañ doon àtte ni ki yàlla dogal na tëj nañ ko ñaari at waaye si biir ñaari at nag fukki fan ak juróom la ciy tëdd incha allahu ñaari at lañ ko tëj waaye si biir ñaari at yi fukki fan ak juróom la ciy tëdd ñu ngi sant di gërëm ñu asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki xarit mbokki am di jàmm yi ñu ngi leen di yëgal ne sëriñ Ibrahima Diang mi nga xam ne moom lañ doon atte ni yàlla dogal na tej nañ ko ñaari at waaye si biir ñaari at nag fukki fan ak juróom la ciy tëdd incha allahu ñaari at lañ ko tëj waaye si biir ñaari at yi fukki fan ak juróom la ciy tëdd ñu ngi sant di gërëm ñu asalaamaaleykum kon ginnaaw bu ñu jógee ci loolu ngeen gis seetaan ko mu jëm ci wàllu alxuraan ji nu bàyyi leen ngeen seetaan vidéo boobu nga xam ne moo jëm ci luy wax ci wàllu ordre mondial ordre mondial nag euh, day doon rek la Cheikh Abdoul Khadir waxoon ni leen na ngeen leen jàppale. ci lu kaw lu wutewul ak seen diine li fekk mbir gi xew te wutewul ak suñu diine waaye lépp lu wuteeg suñu diine loola moom deesu ko mën a nangu ordre divine nag mooy benn rek mooy la ilaha illallah muhammadu rasulullah on ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne je dis bien personne ne pourra s'y opposer nous mettrons en place un système monétaire qui les fera prisonniers pour toujours et qui mettra leurs enfants en faute et en dette nous concentrerons leur attention sur l'argent et les biens matériels, afin que beaucoup ne se connectent jamais à leur moi intérieur. Nous utiliserons des métaux mous, des accélérateurs de vieillissement et des tranquillisants dans les aliments et l'eau, et aussi dans l'air. Les métaux les mèneront à ce qu'ils perdent leur intelligence. Il s'agit donc de l'aluminium, du cuivre, etc., à travers les chemtrails. Nous promettons de trouver un antidote dans nos nombreux domaines et nous les nourrirons avec plus de poison. Les toxines seront absorbées par leur peau et leur bouche, détruisant leur cerveau et leur système reproducteur. Les toxines seront cachées dans tout ce qui les entoure, dans ce qu'ils boivent, mangent, respirent et portent. Avec des images amusantes et des musiques, on leur apprendra que les poisons sont bons. Lorsque les femmes accoucheront, nous injecterons des toxines dans le sang de leurs enfants et nous les convaincrons que c'est pour les aider. On commencera le plus tôt possible quand leurs cerveaux seront encore jeunes. Nous prendrons leurs enfants avec ce qu'ils aiment, le sucré. Quand leur capacité d'apprendre aura été réduite, nous créerons des médicaments qui les rendront encore plus malades et qui causeront d'autres maladies, pour lesquelles nous créerons encore plus de médicaments. Nous utiliserons notre pouvoir pour les rendre dociles et faibles. Ils grandiront en étant déprimés, lents et en surpoids. Nous les distrairons avec l'impudicité, les plaisirs et les jeux. ils feront ce que nous leur dirons. S'ils s'opposent, nous trouverons des moyens d'utiliser dans leur vie des technologies qui changent la conscience. Nous utiliserons la peur comme notre arme. Nous construirons leur gouvernement en établissant des animosités en leur sein. Nous aurons les deux côtés. Ils feront le travail pour nous et nous prospérons grâce à leurs dettes et leur dur labeur. Si ça nous plaît, nous les ferons s'entretuer. Nous contrôlerons tous leurs aspects de leur vie et leur dirons quoi et comment penser. Ils seront occupés à s'entretuer jusqu'à ce que notre but ultime soit atteint. Nous continuerons à les faire vivre dans l'apport et la colère par rapport à l'image et le son, et ainsi de suite. Il est temps de travailler ensemble à l'avènement d'un nouvel ordre mondial, à l'avènement d'un nouvel ordre mondial. di gërëm ñëpp loolu moo seen jataayu murid saadix ak xaadimul xadim incha allahu rabbi ba talaata ak ci vingt heures trente jëf di gërëm Serigne Abdoulaye Sow ci caméra bi Serigne Mouride Dia Serigne Assane Fall wasalaamu aleykum wa rahmatullah wasalaamu ala man itabaa al huda